xalaatam ci ci ci mbir mi ma ñëw ci Cheikh Amadou Bamba Fall Cheikh Amadou Bamba noo gisee situation bi xew Tamba tey jamono ji euh, gis nañ fi sax euh, jàppante bu am diggante Barthélemy Diaz ak waa Pastef foofu ca Tambacounda mais aussi la l'arrestation de Bougane ban jàngat nga ci am nga yëkkati micro bi tuuti waa ma ne ñooñu moom euh, je pense que élégance daf may du mën a sori seen li tax mhm. dinaa ko nag duma laal ci forme bi ci contenu bi li tax moo wax loolu mooy dañoo amul seen jot parce que dañoo dénk yàkkamti dañuy jaawale état ak parti politique te xamuñu ne du benn lii yoonu politique nekku ci yoonu état la mhm. ils affaire avec état état dina ko régler ak ñoom deuxième point bi nga xam ne aussi bëgg naa ci wax mooy dafa am benn sentiment bu ma animé mhm. mooy sentiment wu euh, gis nga nit bu xamul ndeysaan xamul waaye li ëpp def mooy nit ku xamul ba pare di wëy di pousser maanaam ci benn bouchon boo xam ne xam na ni xamul mais force da koy def. ok am ñu la wër am say journaliste yu lay tàgg juste dans le bi di la wax ne yaa fi nekk fekkate boobu dérouté nga bu yàgg gis nga maas. sénégal yi doyen rappelé na ko sànq. sénégal yi dañoo xeex. cinq ans yi ñu génn. Mhm. non Sénégal il une tension électrique. Absolument. Sénégal. Mhm. boobu dafa am lu ñu doon xeex ba jot ko Sénégal dootuñu dundaat ci xeex xeex pare na fi. Mhm. loolu il faut que ñoom politiciens yi ñu xam ko. ok li taxoon sénégalais di xeex. ci yow mi leen ci woo ci yow la dépendre. Mhm. defal sondage ci dëkk bi ngeen laaj acte bii nga xam ne moom la buggaan posé ban acte la am man gisuma gisuma Sénégal ku ko ci rafetlu. Mhm. man gisaguma ko du journal ba ci ñi nga xam ne ñoo ay chroniqueur am ba ci ci taxi yeeg oto yi foo dugg. wax ji benn la kii li mu def di yoon lii nag li koy indi mooy bëgg tur à tout moment bëgg ñu lay tudd mais du nii siiw yomb na gis nañ fi ñoo xam ne siw nañ foo waaye nañ siiwee baaxul tey ji boo bëggee siw ci yenn yi bul défier yenn affaires yi il faut que sénégalais comprendre li mu def gravité bi lan la il faut ñu taxaw ci gravité bi mhm. moom. kon li mu def li mu def dafa grave. non li mu def li mu def li mu def bu doon yeneen réew ci sëñ bi kenn waxatu ko loolu man maa la ko wax gravité bi mooy zone bi mbir mi amee d'abord nañ ko xalaat. zone boobu mais zone à risque la. Bakel Bakel nga xam ni aujourd'hui gars yi ñi ngi wax ni ci ci ci gestion frontalière bi nga xam ne ñi ñi nga xam ne police des frontières dañ ko yor bokk na ci zone yi nga xam ni fa la ñu gën a miser parce que à tout moment entre terrorisme mën na faa jaar. boo gisee ñi nga xam ne sax tey jii mooy ñi ànd ak les gardes présidentielles boo xoolee ni ñu armé woo da ngay xam ni fii zone la boo xam ne zone à risque la okay. mais comment comment comment une personne boo xam ne xamuñu luy sa intention nga ñëw peut-être nag xamul wax dëgg yàlla xamul li tax man la xamul mooy defoon na ko en 2019 mhm. le président Diomaye Faye damay seetaan benn vidéo bu mu defoon fii Walfadjri muy wax ne moom Bougane bi mu defee lii en 2019 Ousmane Sonko la président de Pastef da ko woo téléphone ne ko foo nekk nii mu ne ko maa ngi nii wuro sogi mun ne ko ana président Macky Sall mu ne ko fii lay fanaan si mu ne ko génnal gaaw mhm. te boobu on était dans l'opposition mooy nekkati kii bëgg na waaye xamul kon da jàpp ne lii mu def xamu ko non dafa xamul en réalité mooy xamul xamul bëgg na de mais xamul man li may ñaan di ko ñaan ñi koy ñi muy àndal mooy nañ takk tànk bi nañ ko téye xamal ko ne sëñ bi bëgg nga waaye du nii maanaam dañoo ranger le sièges ci xew mi rek mu dugg di fecc te tëggaguñu. loolu non loolu da ngay dégaamee loolu loolu la def. Mhm. maanaam dafa ñëw ci xew mi ñuy ranger les sièges yi mu tàmbalee di fecc rythme am te tëggaguñu. Mhm. loolu moo ko dal lii nii ko dal nii lépp nii amul benn ku naan républicain nga moo xam foo mën a far ba ci avocat bi koy défendre. Mhm. boo dégloo il avance des propos légers. parce que xam na ni kii li mu def. di yoon Me El Hadji Diouf naka la un président de la république. Mm-hmm. moom il dit que c' est Ousmane Sonko qui est son opposant mais na dem opposé Ousmane Sonko. mais nga yor presque 13 8 8 8 8 yi lan moo ci nekk kenn xamul. Mm-hmm. ngay dugg ci zone boo xam dana la c' est pour la sécurité du président de la république. loo bëgg loo nar mais dangay dem ba xam ne foofu sax mën na sori mais dafa xamul en réalité jàngul xamul wala bu xamee. xamul effectivement ci ban sur quel pied danser parce que lii nii lii nii. lii nii lii nii bu ko état bàyyee suba leneen rek leneen day xew. moo tax man je pense que moom il faut mu comprendre ban bët la ko Sénégalais yi di xoolee. munta Ousmane Sonko Ousmane Sonko la ba doon Ousmane Sonko la preuve en est que bu ñu ko jàppee tax sénégalais yi dañ naan na génn gaaw xam tax. parce que day neexal atmosphère bi. comédien lañ ko jàppee dañ koy challenge. bu waxee ne nu baxal ñu remix ko. bërki démb gis nga suñu ay ministre di wàcc eh sa waay jaaragu fi c'est parce que moom xamul ne nit ñi actuellement ci parti comédie lañ ko pré lañ ko lañ ko wuñ ko sax comme un opposant une personne sérieuse boo xam ne war na mën a chercher ci li nga xam ne mooy lii mais lii amul benn mais bi est-ce que est-ce ëpp mooy mooy du chef de l'état aussi li ma mañ dafa ëpp mooy si ñaar la hmm. da ngay jël sur la personne du chef de l'état et la zone zone bi mu ko defee zone bi ban zone la mais zone boobu zone à risque la foofu fraction de seconde mbir mën naa am parce que zone yu ñuy surveiller le Sénégal ndax entre terrorisme mën na faa jaar te li ma lay wax nii li koy firndeel mooy boo demee fi nga xam ne tey jii mooy image yi di nga gis même garde présidentielle yi ay maanaam li ñu yor armes yu ñu yor bokkul ak yi nga xam ne bu ñuy gunge président fenn fii Dakar moom la ñuy yor. ok zone à risque la. zone à risque la entre Bougane Gueye ci zone à risque boobu mënoon naa indil jëye ju parce que nit ku ne mën na cee rax ay 4 4 8 8 la yor lu toll ci 13 kan moo ne ci biir. ñan ñoo nekk ci biir lu nekk ci biir 4 4 yi mais nit ñi xamuñu ko. surtout gendarmerie na la. gendarmerie na la taxawal nga taxaw défier carrément gendarmerie. bu fekkee Ousmane Sonko lay toppandoo Ousmane Sonko de man musuma gis même buy wax ak avec la gendarmerie. avec les institutions. dañ leen ko sant dañ leen ko sant dañ leen ko sant. Mhm. mais bousculé et les gendarmes étaient tellement courtois avec Mhm. mais nooy mën a wax ak gendarme moom mu def la mu def ba pare avancé loolu li nga xam ne tey ji wax dëgg yàlla man de en tant que un sénégalais te gis nga ñi muy àndal nii. yàlla sunu borom xam nañ ni ñii mhm. dañ koy saraxe. ok moom nagu sarax la boo xam ne ñii dañ koy saraxe la mhm. preuve en est que li yëfi di xumb xumb xumb. ñoom bi ñu tegee ba image ngay gis merci ah. xool lii lañ ci ama absolument génn ci télé yi occupé écran yi moom mu nekk fële ñu koy tànc. gañewu ci dara. est-ce que ñi mu àndal aussi waruñ ko wax dëgg par rapport à ça non je l'ai dit ñoom ñi mu àndal lii leen soxla ci moom xam nga lu ñu soxla ci moom mooy jiital ko mu doon nagu sarax bi ñu koy pamte pamte ñoom ñu génn occupé écran yi mm-hmm. moo tax ma ne la muusul tey sax fu mu xeex merci beaucoup Barthélémy Diaz ak merci beaucoup loolu laa la wax mm-hmm. moo tax ma ne la muusul xamul jàngul faaw nit ñi dimbali ko en réalité il faut que ñu dimbali ko mm-hmm. te dimbali gi ci njëkk mooy da nga koy woo nga wax ko dëgg na ko sëñ bi wax dëgg yàlla kenn terewul nga opposé wu waaye nii la ak nii ak nii ak nii. Mhm. ni ko le président son ko defee loon bi mu koy demee di attaque di di dem ci zone président Macky Sall mais daf ko ne génnal foofu gaaw parce que foofu zone la bu baaxul. ok bu fa fanaan mais noonu la war a am ñoo xam dañ koy dimbali tey mais li mu def nii lii bu doon yeneen réew Bougane du ko waxaat. <laughs> donc j'ai vu du ko waxaat. Mhm. wax naa ko sànq ci ñaari mbir laa ko teg benn bi mooy zone à risque la boo xam ni terrorisme. yaa ngi dégg porte la ngir mu dugg foofu. Mhm. président dem fa ay armes maanaam militaires yi accompagné ko avec ay armes yu sophistiquées. ok yow nga ñëw ak say. 4 4 mais xanaa ko société bi wax na nañ ko libéré. ñooñu non non ñooñu non ils sont dans leur rôle. Mhm. comme ni ñu ko doon defalee keneen ak keneen ils sont dans leur rôle mais tamit ñoom il faut que ñu xam ne masse sénégalais dañoo tourné beneen page dañoo nekk ci beneen beneen niveau maanaam Sénégal soxlaatul coow soxlaatul bruit bi dañoo am pétrole dañoo am gaz soxlaatuñu yii mais dama j'ai l'impression que. Sénégalais yi dañoo bëgg a baax bëgg a tabax am ci ñoo xam ne dañ ne carrément du ngeen baax carrément du ngeen tabax mais lii la ah. les Sénégalais sont fatigués bëgg a génne ci gouffre bi nga xam ne tey jii fa la ñu jëlee 12 ans yi ñuy dem bay seen bout du tunnel am ñoo xam ne dañ naan force fii ngeen bëgg a ñëw ñoo ak état la mais ñun li ñu gérer en tant que politique mooy suñu yoon da cee nekkul bu ko neexee nag mën naa tudd Ousmane Sonko moom lu xew mën Ousmane Sonko waaw mais loolu baax mais kan mooy le président de la république mhm. c'est Bassirou Diomaye Faye ba jamono daan baax un président de la république nga ni opposé wu guleet dans l'histoire politique du monde ay Sénégal ñuy opposé wu un premier ministre ah c'est un premier qui n'est merci beaucoup. <laughs> ok jë jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba ma ñëw ci El Hadj Malick Dioum El Hadj euh, sa xalaat ci mbir mi la euh, l'arrestation de Bougane ak li xew Tamba jamono ji